collectif bi nga xam si moom moo dajale enseignant yi nga xam ay vacataire lañ fële ca université Cheikh Anta Diop ñoom ñaanandoo di réclamer seen salaire yi nga xam si war nañ leen ko fay mu jëm mu jëm ci premier semestre 2021 bi lu ne mel ñu ngi ko xamle ci seen benn communiqué bu nga xam si ñu ngi ko publier ci mardi 8 septembre bi ki nga xam si moom mooy Ibrahima Mboup nekk seen chargé des affaires pédagogiques juridiques et scientifiques ci ay kàddoom mu ni ñoom lépp nga xam si warloo woon nañ ko ci wàllum njàngale ak wàllu encadrement def nañ ko te jotuñu dërëm mu ne pourtant bari na fi ay événement yoo xam fekkoon na leen ñu nekk di jàngale waaye ñàkk lu leen fay moo tax jotuñoo mën a faj soxla ba dañoo mujjee lépp pour faj ko ba ci sax nee na jàngale mi nga xam si moom la ñuy def lépp lu ci aju ci wàllu frais ñoom seen bopp ñoom ñoo ko doon jël en charge te ñi ngi réclamer sans délai li ñu leen war a jox ba tey tamit ñooy dañuy fàttali ni ab situation la boo xam ne ci lu ñuy insister la te muy fàttali ni ñoom nekkuñ fa ñu ndaw parce que ñoom ñu ngi tolloo 80 pour cent ci personnel d'enseignement et de recherche ci université publique yu Sénégal yi ci buñ ko jëlee de façon globale ñoom nag ñu ne ñi ngay woo ñi nga xam si ñoom ñoo nekk ci ministère bu yor wàllum finance bi ak ay service am ci ñu résoudre problème bi ni mu gën a gaawee ngir seeni soxla yi ñu mën koo faj